demal film wax demal film wax asalaamaaleykum mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Casamance di wër daara yi fi nekk ak njàngum alxuraan nu mu fiy doxee tey nag ñu ngi yegg si fii ci Medina Souane muy dëkk boo xam ne boo fi duggee rek di nga yëg ni fii diinay lislaam mi ngi fi ndax jumaa lañ fi njëkk a gis waaye ñu ñëw ci daara ji nga gis xale yi daanaka daara ji plus de deux cent élèves ñu ngi fi di jàng waaye li ma gën a yéem ci daara ji mooy yar bi nekk ci gone yi ak taalibe gi nekk ci gone yi ak séparation bi nga xamné amna fi ci digënté góor ñi ak jigéen ñi muy luma yëm tay nak ñom ñoma indi seen kaanga kaang ma ngi ni sëñ bi jëlama seen kaang bi acca ñu dem ba'da a'udhu billahi minash shaytan rajim subhanallazi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل علا تتخذوا من دوني وكيلا ما شاء الله تيو طيب، لغاي جان صرف لير مخارج الخروج بك ييب ген ها كون سنغال كين ما اتا لغي سكام نينتي اجوما جي ماي ني سوره كهف ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على قبله الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعشا شديدا من لدن من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماقفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم in yaquluuna illa kadiba macha allah lii mooy barkeelu bi yàlla yàlla barkeel kon Sénégal ruq boo dugg rek fekk fa alquranul karim yàlla nañu yàlla barkeel ah def na na ngeen def ni moom góorgóorlu ba moo ko alquran jërë ngeen jëf alhamdulilah